bu weex. waaw Lac de Guiers numéro 2 mi ngi noonu mbokk yi sol benn blouson Sénégal sol coppite bi nga xamante ne moom la soloon Bécaye keroog signature ba mi ngi noonu di wax ay mbokkam nee naa lamb daa bëri ay tegtal fi mu toll nii mi ngi ci dernier réglage lamb daa bëri ay tegtal kon mi la waxee mi ngi noonu sol benn blouson Sénégal Lac 2 mi ngi noonu yor benn glace ci main droite bi nee naa lamb daa bëri ay tegtal le penseur noonu la de guerre de mi noonu nee naa lamb daa bëri ay tegtal ndeysaan ah en tout cas la combat mystique na bekaay c'est de non combat mystique na pël gis nañ bu pikin na la ngeen pousse. combat mystique le peul comme ni ko waxe won démb gis nañ démb diggante Boña bi Boña di ñëw nii ni mu meloon démb. am nu kay daal ñun ñi sa ndessane mi ngi dugg ci auto bi ndessane da ngay déw gi non bagay grand dafa ndànk ah. mi ngi ñëw mi ngi ñëw ndessane la rigueur ngi nonu mi ngi nonu la rigueur deew gi nonu hommage à mama ndeysaan mooy course bi ko mooy waaj dugg si noonu yegg na fi nga xamante ne mooy lieu bi terrain marche jeudi dans quelques instants mu war a dugg si ànd ak ñoom Alioune Seye numéro ak ñoom Alioune Seye junior la déggee 2 moo war a dugg si ci kanam tuuti rek ndeysaan mu ngi noonu ci kanam tuuti moo war a dugg si mi ngi noonu bagaay nee naa lamb daa baax waay tegtal coow li bëri na trop comme démb liñ gisoon Pikine mais combat moo ñu bés bi moo ñu toll coow lu bëri na ndeysaan coow lu bëri na trop ci porte bi Bécaye la de guerre numéro 2 xëy bi combat ci le 13 samedi bii ñu dégmal digganteem ak Boy Niang numéro 2 entreprise ak géejawaay histoire daa leen yi boole xale bi yàgg fee dugg am fu jaar ak ñoom la de guerre jël ko ne ko da ngaa yàgg a tooñ rakk loolu dinaa ko dakkal. waye ndax lol dina am pk yaakaar samedi lay leer mi ngi nonu diggante Lac de Guiers ak boyña ndaysan ndeysaan mu duggu si ndaysan ñi ngi ñi ngi wiss wis ay ndox la de Guiers boyña ndaysan ñi non du wiss ay ndox ko suron ngay seen nonu muy am lu muy wax ali sey 2 ngi ngay seen bekay ali sey numéro 2 wa bour wa mais bour ay le treize ay le treize le treize lan day naan ci gopp fonde wala déet. dina dakkal li fi booy dem. xale bi nee na ko ci nu fonde laa teg fonde bu tàng jër te ku jël di nga dinaa ca kaas lan na ko lan na ko ci nu fonde laay képp mën na da ger. ndax buur la rek dina dakkal loolu. ah champion la bancheur la nag bu mag la du yàq ngooñ ku bëreeg Modou Lo dan barki dem boo ñaay yëkkini daan ama seen bëreeg Papa Sow daan champion yooyu yep yep yep yep tay tay xam nga ne la bes bi wallahi azim xam na ni mu toll. loolu làmb lépp daan ñoom ñaar kan moy ñëk dem. ñom ñaar da lay wër ni booy ñaar mooy njëkk dem ndax mom mo soxla la dege doyam la ci lamb la champion yi kenn lesetu ko booy ñaaw bëgg dem da ko bëgg dem fo nga dem. sax way ñi lay jaajeufal waaw moy way dugg ci nonu ndaysan la dege deux moy way dugg ci nonu coow li bëri na ci porte bi. tool yi bëri na torop combat bi dafa mystique comme ni ma la ko waxee. Lac de Guiers ngi noonu daal di sol benn blouson Sénégal comme ni ko waxoon sànq daal di benn compatique daal di kaala woo kaala gu weex Lac de Guiers 2 ngi noonu le penseur di wàll mi ngi noonu am bis bu rëy Bécaye